rahmatullah bala ñuy tàmbali suñu wax rek dañuy ñaanal sëñ mun Muntaxa mu yàgg fi loolu te wér ba naa yi mu naalal sëñ Tuubaa lépp mu yàggali ko te nu ànd koog moom. di leen jaajëfal yéen it yéen ñi ngeen xamante ni yéen bàyyi seen it te yéen ñëpp di ñëw fii di teew ak ñun ci Mayumba liggéey bi nag moom niñ koy waajalee comme ni ñuy waajalee yeneen liggéey yëpp yoo xamante ni dafa jëm ci sëñ bi rek comme màggal ak gàmm ak yëpp rek di wax ni rek depuis 98. lépp loo xamante ni événement religieux la fii ci dëkk bi muy màggal wala dara ñun ñooy dem taxaw ko Maayom Ba ji bi ko commencé tey mooy cinquième édition noo koy taxawu di ci am lool nag parce que liggéey moom gënta rëy nga liggéeyal Serigne Touba xanaa di ñaan li ñu ñaan rek Serigne tubaa defal na ko ñi nga xamante ni noo ŋànk liggéey bi fi ñu ko bëgg a yeggale nu yeggale ko fa. sunu borom def ci ay milliardaires yoo xamante ni kenn rek mooy jóg def liggéey bépp am nañ yéene ji am nañ pas-pas bi loolu dong moo des mais ret nag dafa am benn lu ci dugg muy sama rakk la ñu bokk liggéey bi lii dafa wane ni liggéey bi nu ànd di ko liggéey liggéey bi rafet na ndax dama koo jëlee fiil mu bàyyi ay yitteem depuis jeudi ma bàyyi sama matériel ni ko sa matériel mooy dem mu bàyyi yitte yooyu yëpp li mu am lépp mu génne ko ni ma loo bëgg mooy dem ñaari fan mu bàyyi liggéey ñoo ànd kook man ñu bëgg rek ñu ñaanal ko moom it déwén bu ñu ñëwaat ñu ñëw ba ñëwaat nga xam ni camion lañ koy gaare fii waaw camion ak di ñaanal ñëpp rek di la jaajëfal yow sëñ Mourtala taxawaay bi ca Sénégal ak fi yëpp rek jërë ngeen jëf loolu mooy waa commission sonorisation fii ci Mayomba ñu gën koo xam ci as mbéngu suukar alwani yu géwlu caravane bi salaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum mbokk julliti mbokki taalibe yi gis ngeen màggal gi nu doon def Mayomba ngeen ànd ceeg seen télévision taw euh, Tawfekh production ànd ceeg Mayomba TV ànd ceeg Guy Mbind TV ànd ceeg télévision Touba TV ak les autres télévisions TFM yëpp. loolu nag li ñu taxoon ñu ko doon def mooy toppoon jeexiti sëriñ bi fii bi nu xëyee nag la ñu war a jóge fii ci Mayomba dem fa nga xam ni mooy Lambarana Lambarana nag mooy fañ njëkk a jaar bi ñu ñëw fii gën a jege gi moo tax ñu ñëw fii gën a sori fii mooy Mayomba nu war fee départ tey ci bisub gaaw bi di samedi ndax màggal gi àjjuma la woon démb bi nu ñëwee jàngkat yi gis nga leen sëñ Bolle Mbay Alaaji sek ah sëñ Soy bu mbay sëñ Ibra Diop bu Kayar ak sëñ Ilimane Touré ak euh, jàmbaar yëpp kenn ku ci nekk gis nga conférencier yi muy euh, ñoom sëñ Ahmadou Mbakke Baye Dam Mbay ak euh, mboolem ñi fi jël kàddu sëñ Cheikh Mbeng ak murit yëpp ci liggéey bi am solo bi évêque bu Mayumba bi gis nga ko mi ngi noonu di ñu gunge moo taxaw noonu moom itam noo ngi ñaan suñu borom euh, gën a may dëkk bi jàmm ndax dëkk bi Serigne Touba moo ko moom. mu mel ne rek kon euh, euh, dañuy seet kalaam anamu ma dem topp ko yaakaar naa dinaa ko dinaa ko dinaa ko am fa séene ko am rek laaj ko ay quelques baat mu tontu ma. xam naa ni moom dama koy fekk fii rek laaj ko waaw sëñ Kalaam euh, ban bilan nga ma mën a defal ci li nga xamante ne moo xew. Ah, jërëjëf sëñ moor bilan bi moom li may tàmbale mooy alhamdulilahi rabi alamina jërëjëf ci xarim rasul jaaraama serafal ndax maanaam euh, tàmbale nañ ko ci bisimilah yàlla na ko yàggale nañ ko ci alhamdulilahi rabi alamina jóge Sénégal waajal màggal gi di màggal soxna jaare ci Gabon maanaam ci Mayomba waaw waaje ko Sénégal ànd kook mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ñëw màggal si ko màggal gi alaa daw me ne ndax maanaam an ànd naag maanaam li nga xam ne moom la ñu sëñ Muntaxa waxan ni nekk leen ci rek da ngeen ci dajeek tawfeex Sëriñ Tuubaa noo ngi koy gis noo ngi koy gis ndax maanaam ca Sénégal ca Touba la waa maayum Mayumba ñëw jébbal caabi Mayumba sëñ Muntaxa nu ñëw fii ci Gabon nanu ko président bi di euh, diggé woon ñu jëbbal nu terrain boo xamante ni dañ koo jox Serigne moom moomal ko boppam fii ci ba nu fas ko fa yéenee sampal ñeenti soroor muy juma joo xamante ni jumaa yi Mayumba Serigne Touba ak kër Serigne Touba daare Soxna Jaara loolee nag mooy mébét mi nga xamante ni moom la Serigne Fallou mi initiateur bi mébétoon loolee nag nuy sant bu baax Serigne bi di sant bu baax mbokki taalibe yi nu àndal liggéey bi particulièrement nag la presse parce que nag la presse Euh, dañ cee liggéey liggéey bu amam solo rawatina sëñ Maam Mor Mbaye mii tey mu jàkkaar lool depuis Sénégal ba fii noppalul yendalul fanaanul waaw taw Tawfekh Production ak moom ànd ak nun ak tubaa Vision maanaam presse bépp rek Touba TV TFM ah Guy Mbind TV Mayumba TV presse presse bi en général ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ndax euh, liggéey nañ ci liggéey boo xam ne bu mucc ayib la voilà nu fas yéene nag di woo mbooleem jullit yeeg taalibey Serigne Touba yëpp xamal leen leen màggalu Mayumba gi tàmbali nañ ko bi mooy cinquième édition jox nañu kër Serigne Touba ñu fas fa yéene tabax jumaayu Serigne Touba fii ci Mayumba di ci woo ñëpp nag taalibe bu nekk war nga cee ñëw jàpp ci ngir loolee maanaam nu tabax ko tabax bu mucc ay mu yegg Serigne Mountakha ñu jëbbal ko caabi yi mu ñëw inauguré ko fii nu ànd koog moom te yàgg di ñaan nag yàgg koo ànd di ko màggal. mu mel ne jóge nañ fii euh, fan lañ jëm. bu nu jógee fii ci ba tey jii ci suba gi di gaawu ñoo ngi war a taxaw fi ñu ci Cibanga. waaw bu nu jógee Cibanga war a taxaw euh, muy laa bu nu jógee muy laa taxaw ne ziyaare barab yi nga xam ne fa la Serigne Touba nekkan ca Lambaréné bu nu fa jógee nag door a wuti wuti Libreville. Lambarna est-ce que am na benn activité bu ñu def. ah kay Lambarna danañ fa taxaw ziare barab ya nga xam ne fa la Serigne Touba nekkan waaw ziare barab ya foofee nga xam ni fa la Serigne Touba nekkan. autorité dëkk ba dinañ génn. danañ génn wax ak accueillir nu ñu def euh, maanaam euh, benn conférence de presse voilà ñu waxtaan ak ñoom dalal nu tatagal nu ah nu door fa jóge wuti libre Libreville bu ñu yeggee libre Libreville nag incha allahu rabbi dimanche ji nga xamante nii maanaam ville bi ci lay gën a calmer danañ mën a def visite de site à Libreville incha allahu rabbi dem ba montagne sainte débarcadère baag euh, ministère des finances ak mosquée centrale ak ak mosquée ba nga xam ne mooy kër Sëñ Tuubaa di montagne sainte màggal gi nag noo ngi woo mbooleem jullit yeeg mbooleem taalibe yi xamal leen ni bu nu jógee ci màggalu Tuubaa dañu daal di fas yéene waajalaat màggalu Mayumba gi jëmale ko 2025 na ko ñëpp bàyyi xel jërëjëfati sëñ Kalaam euh, kon ilaa Lambarana jóge nañ maa yomba ñoo nga jëm Lambarana Lambarana la lambee yàlla ba daj ko maa yomba nag fi la lépp yombe alhamdulilah fi kulli xaswatin maal hubbi wa wal qurbi الأسياف تنبا لينا البيب يا مالك غير مالك وطيب وسلم ومن الهدز الأنبا لوتف صلاة سلام ممن وابلي يا مالك دي والجزبان نبس الذي قلبته فتبدلا وجنبني الحجاب والكبر والكسبة أنني كرامات وكلي من الجهاد بما فاق سني ولتسمني الصحبة مددت يدي يا مالكي راجيا لكم قريبا منيبا عن ذا الوسط قريبا منيبا انزا واكسف الرهبان نفيت الاذى عني فجل لي بأوبتي سريعا بلا كد ولي وسيل الاخبار لك سوري سيتني خادم النبي عليه صلاه منك تولي بها صعبان دعوتك بالمختار من أهل كلهم وأسابي يا من كفاني بهم سسبا نفيت بهم عني الأذى ثم كنت لي فلي طيب الرجاء ولي خليل الحسبان